ñu ngi ziare waa jullit yëpp ak taalibe yëpp euh, ñëwoon tey di dalal waa Capa TV fii ci Touba ci màggal gi euh, ànd ak jëwriñ sëñ Modou juuf euh, mu indil ñu ay xalaat ci dëgg-dëgg màggal gi ak jàngale yi ku tedd gi màggal gi heure bi ñu toll ci yoor yoor bi lan lañ ci war a gën a bàyyi xel seigne Modou Diouf ñu andi ci ak mom jeewrin jité keur seigne Touba gi ci Yaraax ñu bàyyi ko mu layuñ ci bir bismillah seigne Modou. wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain وردي الله شيخنا وسيلتنا ورجائنا مولانا الشيخ احمد بام خادم رسول وعلى خدوتنا العظيم ابو المريدين الشيخ ابراهيم فال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سن خادم نيغي لاي ديلو زيار بو باخا باخ واي زياره وا كابا تي في يا خامي دانيو نيو تاي جي سي ماغال جي ديف ام ديف ديف ليغي بو ام سولو ا ñi ngi leen di ndokkel bu baaxa baax ci bis bi ak taxaway bu rafet bi nga xam am ngeen ko ci waye ñëw fi nak ci barab bo xam barab la bo xam ni mënu ñu tuddu tudd Kappa te tudduñu ko fi ci Touba ndax buñ doon wax ni barab bu nek day am mandarga ci Touba manam barab bu Kappa fi moy fi moy mandarga am ci Touba ndax euh, borom kër gi nga xam ci ni mo mo sanc daara ji yalla dogal muy suñu wajur Eh, di suñu idole di suñu royukaay ci lépp rawatina ci suñu digganteeg Serigne Touba eh, nga xam ni bu ñuy màggal fii la ñuy ñëw incha allah taxawee ko ànd ak sëñ Xaadim mi nga xam si ni moom la yàlla dogal mu nekk ci bopp njaboot gi ak ñi topp ci ginnaawam ñëpp ñu ñëw fii ànd ak moom ci màggal gi fas yéene ko doxalee na nga xam ni noonu la ko sëriñ bi diglee waaye kilifa gu baax gi nga xam si nii moo fi bàyyi koo di bàyyi mbayka yàlla na yàlla dolli ko tawféex fa mu nekk noonu la ko daan dundalee ba mu agsi ci loxoom ak ay rakkam moom itam ñu koy dundalee noonu ñu ñaan yàlla mu gën leen a dëgëral gën leen a taxaw ba li nga xam ni noonu lañ ko bëgg di defee saa su nekk te mu dëppoo ngërëmal sëñ bi ñu amee ko noonu euh, màggal gi nag yaakaar naa ni ñun ñëpp yeewu nañ ci euh, sabab bi ak ak ndigal li maanaam Liko sabab ñun ñëpp xam nañ ko mooy tukki boo xam ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul daf koo amaloon ci natt yoo sini, ne si tegon suñu borom tegoon na ko da natt yoo xam ne ak ay ay dige dige yooyu nag ya naa ni lañ ca mën a indi mooy bayt wi ijan rujuhi ila xawmi saadatana wal takfina yawma jamahil xalqi niiraana kon dafa mel ni loolu mooy sërica bi ndax dafa ñaanoon suñu borom niko nang ma defal sama tukki bi muy texeek samaw xeet wala muy texeek xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxul texeek yoonu murit waxul texeek ñi sant Mbàkke wala ñi sant Buso Buso dafa wax ni mu doon texeek mboolem xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bis boobu nag kon ak cant da caa war moo tax mu woote ci cant ta mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar muy bis bii tey kon nag dañuy santle Serigne Touba boromam muy borom bi subhanahu wa taala ta cant gi nag daa am nu mu ko bëggee mooy bernde bernde nag ni ko Cheikh Saliou daan waxee rek mooy da ngay togg ñam ba gën a neex di ko joxe te doo ci am xaaj ak seen kon ñun màggal gi noonu lañ koy dundalee fii ci kër Baye Mbayka ñi ngi ñaan nag suñu boroom ñu ñu dundal ko téeméer at ci njiital suñ xaadim ka ak ay rakkam yëpp ba fi ko góor gi bàyyi woon ñu yóbbu ko foo xam si nii dana kawe njott lool ta am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar ndax yaakaar naa lu kenn man ñaare koo dàq rawatina nag lu ëpp ñaar ndax Baye Mbaye kenn la woon doon jëf ci màggal gi loo xam ne ñëpp tegoon nañ seen bët waaye tey ay bay ay Baye Mbaye ka ñoo fi nekk ay Baye Mbaye ka ci Pastef ci ci yitte ci bëgg sëñ Touba ci nangoo jëf ci yoonu sëñ Touba bi kon nag ñu ngi leen ñaanal suñu borom àggale seen yéene waaye ñun ñi nga xam si ni doom lañ ci kër gi waaye di fi wëllëre e, ñu ànd koog ñoom ba liggéey bi mat sëkk ci barkeb sëñ Touba loolu daal moo doon suñuy kàddu inshallah magal màggal non dinañ koy yendo noonu ak jam bu ngooneet inshallah allah yi ñu daal di koy fanane ba bër inshallah jankat alquran yaangi ne di diko di ko di ci te non lañ koy yendo inshallah diko di ko def ci niko suñu borom bëgge waaw nañ yàlla nangul lepp te ñu ci tawfiq señ tuba Tuubaa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wax deug yàlla kaddu yi amna solo lol lol lol ñëw nga ci tombu yu bare bare Ah, ci ni ko sëriñ bi bëggee woon ah, bis bi tey eh, bi mu jógee ci tukkim ba ah, bëgg ñu ko yàlla suñu borom kon nag tey jii dëppook altine di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar a ñu ci santele sëriñ Touba boromam ci li mu ko defal waaw cant gi nag ni ko sëñ Modou waxee rek waaw moom naka ku baax ka waxoon fexe ba benn day doy Euh, alxuraan ji ñu jàng ci lu ñu mën euh, julli ci yonent bi ja def ci lu ñu mën euh, zikr turi yàlla yi def ci lu ñu mën dëgg dëgg nag màggal gi moom mën nga ko ci lool rek waaw ndax sëñ Modou mii nag moom moom du du du du du nu koy waari sax du du gan ci kër gi moom daa bokk ci kër gi ndax suñu waajur wa dafa am fu mu ko tegoon lool fu ko tegoon lool Dan ko baye xel ci lu bëree man ma lu sa ma toog ma laal ñu ni ma bàyyi lépp ñoo koy def te boo waxee ñu ni sëñ Xaadim kon nag loolu daanaka amuma lu ko gën a rëy waaw loolu moom lu ma laal ñun ma bàyyil lu ma bëgg a def ñun ma bàyyil te lu ñëw ñu sëñ Xaadim ma ko def loolu yaakaar naa ni man awma seen fay awma seen fay xanaa di leen ñaanal rek eh, yàlla suñu borom gën a guddal seen fan gën leen taxaw li nga xam liñ fi def ëllëg mooy képp ko def ci màggal rek mm. balaa déwén yàlla na ko suñu borom ful def ko lu baree baree bari ba ñëpp xaj waaw jërë ngeen jëf waa kay jërëjëf billahi mina seytaan jëm ñu ngi nuyu ñëpp màggal gi moom macha allah wax dëgg yàlla waaw neex na wax dëgg yàlla yàlla na yàlla def jàmm ak salaam yàlla barkeer ñu teew ak ndege ñu déwéne déwéne déwén ni ñu ko dajee nii yàlla nañu ko dajewaat bu kenn manqué ci barki Seydina naa sallallahu alayhi wa màggal gi moom neex na sant nañ bu wér xooli sedd nañ guy wax dëgg yàlla macha allah déedéet yoon bi moom sonn ñu si moom macha allah sonn ñu. te buñ ci sonnoon sax baax na ndax liggéeyi sëriñ Tuubaa moom du yomb du yomb ndax sëñ bi fi mu jaar yëpp kon lu ci waaye daj lu ne rek danga koy sante suñu borom bu baax te xam ne lii yëpp coonaam moo ko ko may ñun nag liggéeyal sëriñ Tuubaa moo tax a ñëw ñëwuñu di tëdd ko nelaw ñëwuñu di soloo ko simeeku dañoo ñëw pour liggéeyal sëriñ Tuubaa looloo ñu tax a jóg sëriñ Tuubaa rek suñu xëyee si la ñuy ndékk ci la ñuy añc ne yëpp sëriñ Tuubaa wax dëgg yàlla macha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp xolli sedd nañ guy wasalaam. ñu ngi ziar ñëpp di baal waax ñëpp di baal ñëpp àq di am mbégte bu baax di am contentement macha allah si teew si teew si màggal gi nga xam ne comme ni ko Ndeye Fatou waxee léegi macha allah Serigne Touba daj ci ay coono yu metti ne bis bi saay bu ñëwatee santale leen ma yàlla santale leen ma yàlla ci teraanga bi nga xam ni moom la ma defal. loolu nag wax dëgg yàlla mbégte la ndax mënoon naa ñëw fayu jàkkaarlook ay noonam waay bi mu ñëwee dafa ne jéggal naa ñëpp jéggal naa ñëpp te bis bi saay bu dellu sudee sant la leen ma yàlla kon loolu sant yàlla la ñu ngi sant nag ci berndeel yi nga xam ni moom la ñu waa kër gi defal du ko commencé ci ngóone ak borom këram si taxawaay bi macha rafet na lool ñu ngi ciy am mbégte bu baax a baax a baax gis nañ ñu ñu téyalee sunu mag ji macha allah ndax moom mooy sëy ci kër gi di di soxna góor ak wax dëgg yàlla gis nañu ko téewee macha allah kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax ah. waaw macha allah waaye lépp sant yàlla la rek sant yàlla la rek pas yeeg ak dugg dëkk bi xat beeg lépp sant la rek parce que coono yi sëñ bi daj ñun xaaj bi dajuñu ko. waaw kon buñ dajee lii nii rek dañ koy sante yàlla rek te xam ni lépp sant yàlla la ndax sant yàlla moo demee noonu mënul yomb waaw mënul sant yàlla moom mënul yomb waaw yàlla moom booy daj ay coonom faw mu metti tuuti ndax mu mën a nangu waaye ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ba di gërëm gaa yeeg ñëpp di gërëm waa kër gi bàyyiwuñu kenn jigéen ñi fi nekk ak ñëpp ñu ngi leen gërëm bu baax baax di gërëm sama waa ji nga xam ne moom tamit nekk fi di maam Thierno di borom baax nga xam ne bu musaana ñëw fii nañu nekk ak moom macha allah di waxtaan ak moom ku baaxoon la moom tamit macha allah fi mu nekk tamit yàlla defal ko fa xéewal ci barke yonent bi